te chaîne bi di tàmbali muy CTV euh, ñoo ma proposé ma def euh, jataay boobu ak yéen ma sawar ci loolu parce que ay partenaires lañu donc question bu njëkk bi Senweb posé ko jëm ci procès Bart bi li ma ci njëkk a tontu mooy ni euh, procès yi bëri na lool ci réew mi léegi te wax dëgg yàlla war nañ mën a doxal réew mi ba nga xam ni procès gaa du ñàkk te sax dafa war di am ndax léeg-léeg foog ñu dem fi mbaxane doone benn dëkk yi civilisé yépp di doxal démocratie di jéem a doxal euh, bonne gouvernance euh, dañuy def séparation de pouvoir institution judiciaire bi day am àqam euh, dossier bu fa dem ñu traité ko correctement kon loolu gis ngeen ko France ak États-Unis fépp dañuy def yenn saa ay procès yu metti yu gudd kon loolu dafa bokk ci démocratie bokk ci bonne gouvernance mais nag procès yi bu baree lool léegi ku sëqat sax euh, ñu citation directe la yóbbu la tribunal nangam ak nangam euh, téye la fa ay fan léeg-léeg euh, ñaareel ba homme politique ak femme politique yi man dama gis ne ñu ngi jël réew mi en otage depuis quelques années mën nga wax ni presque depuis régime Ablaye Wade quelque part tëjante daanaka lañ nekk di def ku ñëw ci pouvoir bi tëj sa morom. ku nekk ci opposition bi ne dañ ma bëgg a tëj euh, léegi nag pour man sax ñu ngi dem ci lu gën a doy waar mooy daanaka léegi ku am problème boo xam ni egg na justice kenn nangootul bàyyi justice réglé ko da ngay wut sa mbooloo dem ci média yi euh, fexe ba justice sax bañ a réglé problème bi su ko defee kon loolu mën na indi jungle mën na ni réew mu pëccaxoo bu tasaaroo Euh, boo xam ni kenn dootu fa mën a wax ne république la kenn dootul mën a wax ne état de droit la euh, Sénégal fu mu nekk nii daanaka mi ngi jëm foofu gis ngeen ni euh, surtout temps yi daanaka homme politique yi ku ci am problème boo xam ni dafa war dem justice di nga lijjanti ba wax ne warul dem justice bu demul justice nag rek ko ku koy lijjanti lu muy mujj doon mooy jaayante doole ku nekk woo say xale woo say mbooloo jox leen ay armes ñu génn ci mbedd yi di rayante yaakaar ma ne Sénégal Sénégal mérité na lu mel noonu ginnaaw bi ñu amee démocratie bu yàgg ginnaaw bi ñu amee institution yoo xam ne yu dëgër lañ donte woon nag li ñuy def yëpp du lu parfait mais loolu amul fenn tey jii États-Unis tey jii France et cetera da ngay gis ñu def benn procès ba pare ñu génn nga dégg avocat bi daal di tegul fenn lii du droit jaaduwul nangam ak nangam ñu def recours soit ñu annulé ko wala sax ñu yokk pen ba et cetera et cetera wala ñu ne dañ koo calculer euh, lu tax ñu woo waa ji ci tel moment tel kon loolu daal lay wax ci procès Barth bi mais quand même je reste toujours sur le principe mooy que pour man justice boo xam ni taxu ko dox trop ba tey sax moom ma gënal ñàkk justice. kon pour man di nga institution judiciaire bi en tant que telle Sénégal amul justice séparation de pouvoir amu fi nangam ak nangam euh, am na lu ci nekk dëgg mais nag bëgg ko def benn principe ba léegi kon euh, institution judiciaire dootul am benn légitimité loolu c'est très dangereux. kon loolu classe politique bi pour man waruñu yóbbu Sénégal ci euh, wàll boobu moo tax ku ci am dossier bu dem justice comme dossier Barth bi nit faatu na mais foog mu dem justice parce que quand même nit ku benn mala bu faatu mala bu faatu sax man léegi incha allahu taala xaar leen ba sama association bi pare association pour euh, euh, protection du bien-être di ngeen ma dégg may dem justice ak ñoo xam ne dañuy toroxal mala waxuma la nit kon nag bakkan bu faatu mais su demul justice fan lay dem kon nag léegi magistrat yi tamit am naa message pour ñoom nañ xam ne am na crise de confiance bu am entre ñoom ak population yi parce que dafa am ay dossiers judiciaires yoo xam ne nit ñi dañu gis ne euh, niñ ko lijjantee xaw na doy waa kon ñoom tamit nañu euh, góorgóorlu dem rek maa ngi dégg Gabriel Kane ndaw soosu mu wax loo xam ne gis naa ni rafetlu ma ko mais wax bu doy waar la te yooyu yëpp dafay bokk ci li ma wax nii mu wax ne la justice sénégalaise est complice des violences faites aux femmes au Sénégal ma ne wax bi na di complice mën naa sax nangu mu ne justice Sénégal dañuy bàyyi seen loxo wala dañuy woyefal ay violence yoo xam ni ci jigéen ñi la jëm ñu yóbbu ko ci ñoom mais justice sénégalaise la justice sénégalaise est complice je reprends ces mots est complice des violences faites aux femmes ma ne waa kooku moom tam côté femme moo ko intéressé nee na justice bi complice lañ ñi nga xam ni politique ñoo leen intéressé dañuy wax ne justice bi euh, amu fi li ma nekk homme politique di di xeex ak Macky moo tax ñu bëgg maa jàpp Euh, même ki nekk tamit oustaz wala imam et cetera moom tamit suñ ko yóbboo justice mu ne diine la ñuy xeex moo tax ñu bëgg maa jàpp je crois que kon tamit nañ def attention magistrat itam nañ gën a def attention gën a euh, jël seen cër te xam ne ci séparation de pouvoir lañ nekk maanaam xam nga da ngay dégg souvent ñu naan ministre bi lii et mais magistrat bi ci boppam moo war njëkk a nekk sa propre conscience éthique daal ne ci séparation de pouvoir lañ nekk sama wàll ci république bi président Macky Sall moomu ko kenn moomu ko république moo ma ko jox damay atte dossier bi sama conscience li ma jox ak éléments yi ma am ci dossier bi lu la ci fekk fekk la ci pour man loolu ngay contribuer ci Sénégal jëm ci justice mais pas ah damay ragal ñu euh, affecté ma Kédougou damay ragal euh, ministre bi mere ma damay ragal président du ma jox mandat pour ma bokk après Union africaine ci magistrat yi wala nangam nangam kon loolu laa ciy tontu. Euh, ñu waaw. waaw xam nga loolu mooy des fois man ay dossiers yoo xam ne souvent dama ciy wax ni ci principe bi laa ciy mën a yem euh, pour bañ a daanu vraiment ci populisme wax ci loo xam ni man it nag dafa am damay sàmm sama der aussi euh, am na ñu ko mën a tuddee ragal wala nangam nooy et cetera bien beau mais damay sàmm sama der man sàmm sama der laa ko tuddee sama crédibilité parce que dama bëgg taxawee Sénégal foo xam ni su may wax. damay xam li may wax lan la ba pare teg ko ci loo xam ni euh, mooy dëgg euh, mooy àq fu ku nekk ak charte réew mi li mu laaj. kon nag citation directe buñ la ko defalee nga dem pour man dossier bi nekk na dossier judiciaire en semoment moment ki ñu fa yóbbu ak ki fa yóbbuwaate li leen loi may nañ ko jël ba mu jeex takk defar seen i avocat di def tamit seen i conférence de presse et cetera et cetera euh, foofu laa ci mën a yem amaa nag lu tax ñu téye ko foofu dama yaakaar ne xëy na avocat am ñoo may gën a mën a wax dossier bi techniquement est-ce que loolu jaadu na nit ñu defal ko citation directe ba pare ñu téye ko fa. est-ce que amul yeneen dossiers yoo xam ne lu mel nii la ba pare te kooku ñu bàyyi ko en ce moment kon dañuy gis ne dañoo ciblé Oumar Diagne et cetera man mii amoon naa cas mais cas bi mu amee musuma daal mais dama renseigné wu dama dem ci avocat laaj leen nan lan moo ma mën a fekk ci lii ñu ne ma lii ak lii mën na la cee fekk nangam ak nangam kon foofu laa ci mën a puisque ci moment boobu nekk. Euh, gis nañu waa Yewwi Askan Wi bu ñu génnee juste waa Benno Bokk Yaakaar tam dañuy génn mel ni kii bi bu defee conférence de presse génn di ko contrer te seen seen wax yi du yomb affaire de violence la dañuy répliquer ci violence euh, te peuple bi ñi nga xam ne amuñu protection ñoom ñooy cible bi lan mooy sa message par rapport ak alors euh, waa seen news euh, Touré li ma la mën a wax foofu mooy nee nga tuut baaraam lu jara bàyyi xel mooy jéem a gàttandu euh, fitna jéem a anticiper fitna parce que ni ma leen ko waxee sànq ñiy def politique ak ñeneen ñoo xam ne defuñu sax politique mais am mbooloo yu leen topp suñu amul dal tey rek réew mi mun naa takk Euh, ni ñuy ar tonto ku nekk di harceler sa morom ku nekk di wane ni man am na ay samay nit yoo xam ne mën nañ génn taal réew mi pour nangam ak nangam euh, loolu yaakaaruma ni démocratie bu rafet noonu la war a doxee euh, kon démocratie bu rafet ci man na mu war a doxe mooy d'abord comme ni ma ko waxee sànq république séparation de pouvoir ba pare ay argument ay programme maanaam ku nekk am nga àq ak yelleef bokk ci benn parti politique wala benn mouvement citoyen wala sax société civile wala nekk imam wala euh, nekk syndicaliste di joxe sa xalaat ci réew mi ni muy doxee te fekk kenn du la tiital kenn du la xoqatal waaye yow tamit nga nangu àqu fu keneen tamit mu joxe xalaatam noonu ci lépp lu xew ci pénc mi te doo ko artu ne ko lu tax nga wax lu wuteeg man wala maa la ëpp mbooloo mën naa la duma et cetera kon nañu doxal argument ak xalaat ci réew mi intérêt général euh, lan la réew mi soxla nga waxee ko nii keneen waxee ko neneen ñu waxtaanee ko loolu mooy démocratie loolu mooy waxtaane mbiru penc mi mais saaga artu euh, danaa la duma am na mbooloo euh, démb sorte bi nga xam ni Sonko def na ko euh, dafa xaw a wane ni moom fi mu nekk ni jàmmaarloo rek lay waajal ma gis ci suba keneen génn itam ci APR daal ne Sonko n'a pas pour de la violence il nous trouvera sur son chemin ma ne waaw c'est bien parti alors c'est mal parti Euh, assemblée nationale gis nañ fi nit wax ne boo génnee ma dóor la jaasi gars yi tey nit kooku muy xataraayu ak vestam ma ne fekkee lii mooy Sénégal euh, mi ngi bëgg a doon lu doy waar. Euh, nañu bàyyi ce langage incendiaire ces propos euh, n'est-ce pas yoo xam ni fitna lañ indi te les fois tamit nit da koy waxee noonu rek man je considère par exemple Sonko bu ne ñun fi mu nekk nii combat rek lañ pare jàmmarloo. man téeréew ma ci forcément que dafa bëgg a wax ni teg naa samay fetal ak samay jaasi ak samay xale pour xeex ak reyante mais pour man tam langage politique la pour wane ni pare nañ pour combat politique bi mais pour man homme politique leen rek laa ko mën a nangul muy pare naa pour le combat politique pour la compétition politique waaw militaires yi ñoo war a pare pour xeex tiire fetal ak def leneen kon loolu maa ngi leen di lancé boobu message nañ def une compétition saine ah Euh, état bi garantir cette compétition au niveau des élections avec transparence président Macky Sall xam ne il est président même s'il est dans une coalition politique c'est lui qui doit garantir le fonctionnement normal de la euh, République et de la séparation des pouvoirs et de la euh, dignité de la participation de tout citoyen ci li ko àq ak yelleefam may ci sartu réew mi waaw xam naa non ñu débat ci actualité bi nga xam ne moom moo nekk actuellement fii que ça soit niveau France wala Sénégal parce que gis nañu autorité yi tam ñu ngi ci sànni seen kàddu concernant le cas Idrissa Gana Gueye ak journée bi nga xam ne moom la ñu dédié pour LGBT yi gis nañu daaw fubalul parce que déjà dafa amoon blessure mais ren jii nii amul blessure bu demee ba moom seen maillot s'est floqué flottage yi euh, drapeau góor jigéen ñi nga fa nekk moom jéewul ñu bëgg kaa sanctionné ci kaw loolu avant moom am na ñi nga xam ne def nañ ko am na ay sud américain dara fekku leen te au niveau de l'Angleterre aussi am na benn joueur ivoirien bi nga xam ne mooy yow Black Lives Matter am na signe bi parce que amul benn sens ba te ñoom bu ñu sëggee ñoom moom la ñoom ñëpp sanctionné lan moo tax gana gi mu voilà. Gana Gueye warul doon cible waruñ ko nangul kenn ci àdduna bi euh, muy def kii que ce soit cible di yàlla yàlla loolu ci kaw nit ñi man imaam la te bokk na ci lima jàng ci alquran mooy kenn war te yàlla yàlla loolu ci kaw nit ñi ñun ñëpp ay mbindeef lañ dañu war a joxante àq ak yelleef kon duñ ko nangul kenn mu yàlla yàlla lu ci kaw nit ñi duñu nangu tamit muy Idrissa muy keneen ku yàlla yàlla di ko not di ko jël comme cible mel na kuy cible benn mala wala benn njanaaw mais tubaab yi nag seen fettirlu euh, egg na foofu ci bëgg def nit ñi jàmm ak not leen ci lépp loo xam ni fekkuñ leen ci ñoom seen pas-pas ak seen gëm-gëm donc moo tax problème Idriss Seck bi problème bu yaatu la boo xam ni day dugg ci Idrissa Gana Gueye ngeen baal ma euh, lan laa waxoon Idrissa Seck Idrissa Seck <laughs> Idrissa Gana Gueye laay wax euh, ñàkkul Idrissa Seck boo gisee ma tudd ko mooy depuis ba ñu jàppanteek moom ñun gëstukat yi ca la ma ci bàkka màkka ñun loolu ba dañ ko koy xoolee ba tey moo tax ñàkkul yatus bi loolu moo ko indi. Euh, su ko defee nga gis ni agenda LGBT bi ñun biñ ci commencé wax ñu ne Imam Kanté dafa bëri wax nangam ak nangam foog naa léegi ñu ngi gis ne mi ngi ñëw kon agenda boo xam ne la agenda bu mondial la la preuve xoolal journée bi ñu ko wutal. journée mais en même temps bu ñu nax ni ñi gis nga journée bi ñuy wax nii ci suba def naa ci sama benn poste c'est pas une journée mondiale ah il faut d'abord respecter les termes xam nga su ñuy wax journée internationale wala journée mondiale mooy journée boo xam ni ONU moo ko acté mu nekk xam nga am ni fépp c'est pas mën na jël n'importe quelle journée benn journée xam par exemple boo demee ONU moo ko acté ñu jaar fi ñu waroon jaar ak moom yëpp des des années avant ñuy jubo parce que da gis ay réew yu ne d'accord ci et cetera bañ juboo loolu baax na lu rafet la ñu civilisé dañuy waxtaan au niveau de l'ONU les 195 états à peu près waxtaan ba d'accord ko def ko journée léegi chaque année ñu waxtaan ci contenu bi et cetera mais par contre lii nii du journée mondial de nekkul lu ONU tëral journée bi européens yi ñoo ko tëral benn fondation su ngeen defee seen recherche di ngeen ko gis ñoom ñoo proposé d' abord Angleterre la commencé woon day of xaw ma lan homosexualité nangam nangam su ngeen demee dingeen ko gis. day of gay la mais day of gay mooy day of gay ça n'engage que ki wax day of gay journée la kon bu dèjà bu ñu nax nit ñi ci lu àdduna bi yëpp juboo ñoom ñuy fontoo nit ñi c' est c' est faux pas une journée mondiale du journée ONU donc journée boobu ñoom ñoo ko lijjanti foofu au niveau de l' Angleterre te comme ñoom lu ñu lijjanti rek dañuy bëgg mu nekk lu moo tax ñu tuddee ko des fois international wala des fois mondial du benn mondial xool naa gëstu naa ko y a pas plus de 60 pays yu koy célébrer te même ñooñu sax bul xam na lañ koy célébrer ñenn ñi sax dañuy xaw a làqatu sur les 195 états du de de l'ONU kon nag bu ñu tànkal ni ñi ci affaire que affaire journée mondiale la loolu benn la beneen bi mooy question bi nga posé il faut ñu xam ne problème Idrissa Gueye bi dañ ko war a régler dans le principe comme ça mu nekk une question impersonnelle parce que am na keneen koo xam ni affaire bi moom bëgg na am ci taxawaay mais soit ñemew ko wala xamul lu ko ciy fekk wala xamul lu ci àq yelleefam en tant que sportif. kon dañ ko war a régler de façon impersonnelle ci principe bi ba pare régler ko dans le temps lu ma bëgg a wax mooy définitivement. loolu c'est extrêmement important mais nekk fii rek noonu nañ jàppal sa Gana Gueye pour lan daaw dafa wax ni dama feebar euh, ren solu ko ñu ne ko ñëwal expliquer ñu wala nga sol ko euh, déwén lu muy def non comme journée bi xas na ba am déwén dina amaat léegi day noyyi rek nii le temps que déwén ñëw mu seet lu muy def nañ ko régler de façon impersonnelle comme question bi ni mu ñëwee sànq gis nañ fi ay nit même bu dul journée seen journée euh, LGBT bi gis nañu Mbappé mu jël benn marque sàngara euh, ne duma ko teg. ba tamit yeneen a gën a xam te club yooyu jëloon ay engagement de publicité. ay milliards la leen coûté. Cristiano Ronaldo def na ko. c'est le même principe. c'est-à-dire benn joueur a ngi nii bu bokk ci benn club club boobu am ay publicité nga xam ne dépassé na individu moom mu jël responsabilité individuelle ne lii du ma ko def. mais nag LGBT dañoo am doole ñoom nag bokkuñu ay publicité yooyu ñoom ñoom comme ñoom dañoo am doole en fait dañoo am doole euh, ñun en tant que jullit ñu ñuy jàng alquran nekk imam ñun duñu wax benn mbindeef am na doole dañ naan dafa bëri pexe rek waaw pexe lañ bëri waaw amul benn ëppuñ fi kenn doole. pexe lañu bari nit ñi ñàkk fayda euh, bàyyi leen ñu leen di fonto mais kon euh, lu tax cas yooyu euh, amul tole bi na Idrissa Seck wala ah, ngeen baal ma wala Idrissa Gana Gueye Idrissa Seck na ma baal balaa damay ragal ay nitam dégg conférence bref ñu ne Imam Kanté ci yow la nekkoon alors Idrissa Gana Gueye xanaa kon léegi li mu nekk jullit moo tax mu gën a neex a jam gën a neex a ciblé comme Touré question bi mu indi wala li mu nekk africain moo tax ñu war ko gën a mën a yàpp attention loolu duñ ko nangu de ñun nii en tant que musulman nii en tant que africain pourquoi sud américain su ko defee ñu ñu négocier bàyyi bu ko benn européen yi defee ñu négocier bàyyi parce que peut-être chrétien la wala que euh, tubaab la attention loolu nag day gën a aggraver ñoom seen position kon loolu xénophobie lay indi ak islamophobie boobaa nag damay proposer benn journée de lutte contre l'islamophobie xam nga lu may proposer joueur nañ sol benn maillot boo xam ni kaaba gi moo ci nekk c'est normal pour équilibrer c'est une lutte contre l'islamophobie islamophobie baaxul mooy bañ l'islam te am na ci pays européens yi d'accord xam naa moom damay terminer par par euh, conséquences yi nga xam ne moom la mën a indi euh, ci niveau diplomatie parce que le chef de l'État monsieur Macky Sall tuité na di ko soutenir gis nañu ñu tam seen fédération que ça fédération française bi ak club bi dirigeant daal génn ku ci nekk di wax baax na na xumb c'est bien na ñëpp wax que les gens s'expriment xanaa xamoon nëpp nëppal bi ak euh, cof-cofaan bi mooy tax du ñu régler affaire bi déggoo li ma la wax turé léegi dama ne la affaire bi nañ ko régler dans le principe et de façon définitive na nit ñi wax toutes les parties prenantes dañu ñoo ñu wax dañoo war a wax seen cër la parce que euh, fédération sport bi le conseil d'éthique de la fédération française ak suñu président ak suñu fédération sportive ñoom ñëpp jël nañ position noon la war a demee duñ leen may ñu noppi parce que dañu war a régler problème bi ñaareel bi tamit Idrissa Gueye mais euh, doomu jàmbur la Euh, jullit la africain la bu digne Valérie Pécresse mi ngi koy attaqué naan nañ koo sanctionné financièrement mais Idrissa Gana Gueye gëstu naa sànq deux millions d' la levé pour les enfants africains atteints de VIH sida et de cancer dégg nga Valérie Pécresse kii ko félicité ko te pourtant mi ngi wax affaire exemplarité Valérie Pécresse mu ne Pécresse mu ne ku nekk euh, ci football bi nit ñi di la suivre da nga war a nekk exemple Idrissa Idrissa Gana Gueye loolu mu def levé 2 millions loolu exemple rafet dégg nga mu ko kon seen exemplarité bi c' est c' est sélectif c' est sélectif léegi moo tax ma ne la je reviens toujours sur ça nañ ko régler dans le principe mooy que euh, il faut que mu am clause yu claire xam nga proposé naa ko sama benn poste peut être am na ñoo xam ni comprendre dama ne clause de conscience na am ci sport bi clause de conscience nga xam ni euh, nit ki buy signé contrat day wax ne man football moo moo fi indi wala daw wala xaw ma lan mais pas di nekk militant wu benn cause idéologique wala politique wala lu mën a doon te loolu mi ngi ci texte yi foofu ci seen fédération yi la preuve tey jii comme ni ma la ko waxee Israël mi ngi noot Palestine di nangu seen suuf di leen toroxal mais tey jii boo bëggee wax ni damay sol maillot euh, Palestine ñu ne la non bul dugal affaire politique pourtant c'est la dignité humaine qui est en jeu parce que ñu ngi rey ay nit par contre LGBT ñu ne loolu moom non seulement da nga ko war a dugal ci sport bi mais sax boo solul seen couleur ñu sanctionné la kon loolu nañ ko seetaat ma ma ma am benn dimension aussi bu ma ci dolli. lool lool lool xam nga mooy lan. mooy que ni il faut que FIFA régler question bi définitivement avec les fédérations sportives ñu xam ku nekk sportif est-ce que dañ ko bëgg a def militant wu benn cause wala sportif la nañ ko régler clairement dans les textes il faut regarder les textes au niveau de la FIFA parce que textes yooyu bu ñu ko régler foofu mooy la mooy régir les autres fédérations de sport bu ko defee joueurs yi bu ñuy signé ay contrat tamit kenn du leen fooyee naan leen da ngay génnee sàngara bi wala que da ngay euh, bokk euh, LGBT kooku benn la beneen bi aussi mooy boo xoolee def naa ko ci sama poste bi boo jëlee tey club yi gën a am doole tey Europe seen xaalis fan la jóge ci ay musulman ñu nekk ci golf bi. am na club yoo xam ne demoon nañu bay nax saay ñu def fay investissement massif jënd club ba jënd stade ba jënd bi pendant des années. Newcastle Chelsea. yéen a ma ko gën a xam. kon enjeu am na fa enjeu financier am na fa. Valérie Pécresse maa ngi wax ak moom je lui parle clairement. après naa ko defal benn poste pour moom su fekkee ne affaire ay sanctionné xaalis ngay jaay da ko def ci sa xaalis. xaalis Paris Saint-Germain ak Newcastle yooyu tubaab yi moomuñu ko. tubaab yi fi ñu mënee mooy jël suñu xaalis di ñu di ñu tooñ di ñu ci tooñ mais tam suñ ko defee sekk que ñun jullit di tamit ñu joxe suñu xaalis ak ñun africains yi di leen ko jox asiatique gi duñ ko nangu chinois yi doo laal seen xaalis di leen fonto kon kii kii kii kii yore tey ji Paris saint la seen financier bi du Qatari waaw du mooy dugal milliard ci club bi li li dugg foofu club bi est-ce que ëppul budget wu Sénégal alors waaw léegi nag yow di nga am xaalis mel noonu ba pare bàyyi tubaab ñu lay fontoo kooku tam dinaa ko defal poste sans comme cof naa leen déjà nan ngay nekkee musulman xaalis bu mel noonu nga dugal ko ci club bu tubaab ba pare tubaab bi ne la léegi ci biir club boobu am na journée boo xam ni yëfu góor jigéen dañ koy célébrer te waa club bi dañ koy sol xam nga lu ma koy wax nu mu tudd joxaat ma tudd Ndaseena Xalafi man Imam Ahmed Kanté de Dakar maa ngi koy interpellé di ko wax xam nga lu ma koy wax dama ko ni bu fekkee nii lii dëgg la ah moom ci boppam journée boobu dafa war a sol maillot LGBT il fait partie du staff du club oui lu tax ñuy bàyyi rek Idrissa muy bañ moom moo war a njëkk ko bañ parce que moo ci def alalam te moom tam musulman te yaakaaruma ni danañ ko wax mu sol ko mais jour boobu euh, club ñëpp ko war a sol supporters yi sol ko. staff bi sol ko du rek joueur yi kon moom ci boppam na ko sol te du ko ñemee sol parce que bu ko solee xatar woo ko ne ko bul ñu fonto kon nag na nañu régler problème bi définitivement mooy li ma proposé noonu mooy que musulman buñ investir dans ces clubs là ci problème ci investissement bi ci boppam du problème nañu defaale benn clause éthique comme ni ko tubaab yi defee léegi ah def benn clause éthique mooy que ni kenn du imposer benn joueur ne serait-ce muy sol wala di célébrer loo xam ni dafa weddante ak ngëm-ngëmam wala euh, culture am te loolu pose ko problème de conscience personnel war nañ ko may mu bañ dugg ci loolu. loolu tubaab bi comme xaalis rek lañ gëm suñ leen waxee nii su ngeen nangu loolu ñu tam duñ fi investir dinañ xoolaat affaire boobu donc pour man noonu lañ ko war a régler de au delà de Idriss rek sur le principe et de façon euh, définitive mais mënuñu xaat chaque année euh, ñuy wax qu'est-ce qu'on Eh, di di di di félicité bu baax Idrissa Seck di ko ñaanal yàlla sa gànn Gueye di ko ñaanal eh, yàlla eh, tawfiq il est vraiment exemplaire ci taxawaay bi mu mu am mais en même temps ñun tam am nañ ci cër kan mooy abonné seen chaîne yi du ñun ñun tam ñoo leen di financé di mooy li ma la wax dañuy nax rek suñu xaalis la ñuy jël di ko lekk di ñu naxaat Suisse amul benn ressource naturelle ay banque rek la xaalis kan moo fa nekk eh européens yi pour nga def sa xaalis Suisse fu leer ngay jaar laaj France ñaata ministre nañ fa tëj bu ñu gisee seen compte Suisse ñaata africain seen xaalis ngi Suisse. Kaiser alors ñoom seen xaalis du dugg Suisse facilement mais ñun suñu xaalis africain yi foofu lay dugg kon nag ñun ñu ngi financé européens yi après ñu tourné di ñu not tey ji yéen ñëpp nii presque ko euh, ko sénégalais boo dajeel mu ne yoruma dara dëkk bi dafa dëgër mais am na am na antenne canal abonné na ko wala am na fil bu ñu ko roccil mu ciy fay tuuti pour bañ a rater les match ligue xaw ma nangam nangam kon nag koo xam ne musulman nga au moins ni nga mën a participer déjà mooy que ah journée boobu au moins bu amee bul seetaan match parce que bul xumbal lu araam jullit du xumbal lu araam bul seetaan match bi di seetaan ñuy sol ay mayo LGBT nga leen di seetaan di ci bànneexu di reetaan ku dugal bit nga tàccu xaraam la kon tam day yomb rek toog jàmbaar la yow tam nekkal jàmbaar voilà

lu dul fekk loi wu dëkkam ñoo ko may lool te tey ji loi dëkkam mayu ko muy investir ci benn club boo xam ne dañuy imposer nit ñi benn journée LGBT kooku c'est très important levier boobu c'est très important moo tax fi mu nekk nii pour man maa ngi suggérer président Macky Sall na saisir la Ligue arabe saisir la Ligue islamique mondiale saisir l'ex-OCI muy la conférence islamique wax leen ñu régler problème bi définitivement ñu dégg benn musulman mu dem fenn ci àdduna bi muy Chine muy France te sport kese yóbbu ko fa ñu naan ko léegi il faut nga nekk militant wu cause telle ou cause telle muy LGBT muy lu mën a doon te fekk loolu dafay weddante ak ses valeurs et ses croyances musulmanes loolu côté boobu lañ ko war a régler de façon mondiale comme ñu ngi journée mondiale ñu tam yéen a koy wax guerre na saf mondiale ñun tam nañ leen mondialement sur le plan islamique ne leen du ñu nangu loolu benn citoyen pays musulman di dem ci yéen pour sport ngeen koy bëgg dugal ci yeneen cause yoo xam ne du du pour sport kon nañu saisir na monde musulman bi nañu saisir FIFA ne ko dañu bëgg a régler question boobu sur le point éthique mooy que ni suñuy citoyen musulman du ñu dugg ci benn club ngeen leen di imposer euh, ay ay cause de militantisme yoo xam ne ñu bu ñu leen bëggoon wax yéen tamit na ngeen benn cause islamique wala da du ngeen ko d'accord nan ngay gisee tekk-tekkaaral bi nga xam ne ñi jiite fii l'islam bi instant bii non non tekk-tekkaaruñu wesaare yow tamit ñun ñëpp ngi wax. lu ngeen tuddee tekk-tekkaaral mooy xalif yi wax wala. la république wax si rek day touché Sénégalais yi. waaw waxaale na leen rek waxaale na leen na leen mais xam nga xalif généraux yi aussi. bon xam nga affaire footballu xale yi mel noonu en général nekk lu ñu yittewoo seen entourage ñoo ñoo ciy xam dara wax leen mais fi mu nekk nii ñun ñëpp nii euh, li ñuy wax mooy li xalif généraux yi euh, nar a wax rek parce que ñun ñoom ñoo ñu jàngal meññ ñu ñu nekk ci daara yi et cetera. beneen bi président de la république bu waxee yóbbaale na Sénégal yëpp euh, ministre bi wax na président fédération sportive bi wax na association yi nekk ci confessionnel comme ànd sàmm jikko yanamar ak ñeneen ak ñeneen. ak euh, quelques individualités comme man ak keneen mën nga wax ne kon réewu Sénégal yëpp tey euh, wax nañu mais surtout comme ni ma la ko waxee nee naa la question bi tubaab bi pression la bañ monde musulman monde arabe yëpp ñoo war a wu pour ñu régler ko définitivement. loolu laa la wax mais waruñu leen bàyyee sax ak Sénégal kese fu nekk nii France mën na jàpp ne Sénégal la parce que benn Sénégalais la mais principe bi lañ war a régler te Idrissa Gana euh, mais li mu bañ nii bañu ko rek parce que sénégalais la tey beneen sénégalais mën na ko bañ a bañ na ko nangu. daf ko bañ en tant que. comme waaw ah, mi ngi noonu Bamba Dieng nangu na ko. mi ngi noonu ku nekk ak xaal bi nga toll ak la nga cay ragal kon euh, kon nag Idrissa euh, bañul rek parce que en tant que sénégalais dafa am benn énergie particulière bu sénégalais am di bañ kon Bamba Dieng bañ. Euh, kon daf ko bañ surtout par rapport ici à sa valeur islamique ci wàllu boobu. kon nag du rek question moo tax ma ne la du rek question au Sénégal mais question nee naa la ligue islamique mondiale ak OCI euh, nañ saisir la FIFA parce que loolu ñooñ ñooy seen wujj nuñ koy mën a waxee ñooy seen euh, ñooy seen nawle FIFA mooy seen nawle au plus haut niveau yónnee leen courrier ne leen nañ régler problème bi définitivement waaw ni nga xamee ni yeneen question dañ koy régler définitivement tey ji ñoom ni ñu bëggee def LGBT benn agenda mondial réew yëpp nangu ko ba gis nga ku ko bañ tey ñu taxaw noonu la pays musulman yi war a euh, defee coalition ak même certains pays chrétiens ak Chine ak Union soviétique bëgguñ ko daal di wax ne non question LGBT bi en particulier parce que ci loolu la ñuy waxtaan nii en particulier question boobu nañ ko régler mooy que dëkk bu nekk na ko régler na mu bëggee citoyen bu bokk ci benn dëkk boo xam ni gëmul loolu buñ ko imposer loolu bu mu ñëwee foofu di def sport parce que sport la na am benn neutralité euh, des valeurs au niveau des sports euh, jigéen yi bëggoon def muuru temps yi lañ leen doog autorisé mais yëpp dañ ko doon tere ñu ne non parce que affaire u diine warul dugg ci lu tax tam LGBT dugg ci sport LGBT c'est une attitude c'est un choix idéologique et moral kon nag euh, nit ki na muy def ndax day jaxasoo góor wala jigéen affaire am la mais lu tax nga ne sport bi nañu nangu ne loolu dañ leen war a jàppale wan leen am ngeen ci àqu yelleef et cetera Idrissa Gana Gueye terewul kenn def lu ko neex mais dafa ne man nag du ngeen ma jàppale loo par force euh, ak mayo loo xam ne ñoom lañuy ñuy jëf man sama diine daf ma ko tere. dañuy dañuy rebondir si gis waaw xam nga xam nga lamb moom bëri na ay problème boo laajee imam affaire lamb moom euh, bëri na ay problème yu ci nekk donte woon sax man comme ligaay gars di wax ne man imam euh, moderne la et cetera. c'est vrai que question yooyu waaw euh, imam 2 point 0. benn waaye ne ma lu imam de président ma ne ko ah yaakaar naa ni mooy imam bu présent dans les réseaux sociaux ak mel noonu yaakaar naa loolu la euh, ma ne bu dee loolu ça ne me gêne pas ñu ne imam pas alors parce que je dis que je suis très actif sur les questions d'intérêt général waaw bu dee mais comme duggaguma ci langue politique bi carrément boo ma ne imam politicien lu dul koo xam ne daf ma bëgg a jam ne dafa am ñu ma àndal ci wàllu mën nañu ay bu làqu la ah, ay nit dinañ ma mais Sénégal lañ nekk dama koy góolu après lu lu mu laaj rek après ñu seet nu mu demee alors euh, donc affaire làmb ak yooyu yëpp noonu euh, buñ ko tegoon ci l'islam dëgg te ñuy réewu l'islam aussi duñ ko defee nii euh, futteeku noonu ngemb say awra di feeñ islam bëggeewu ko noonu euh, faat ay waxtu léegi xaw lu tax làmb bi daanaka 14 heures bëggee ñi fay nekk duñ julli def ay xarfa fuufa Euh, bokkaale yàlla la ak yu kenn xamul euh, tooñante bi xeex xuloo euh, jël yëfu jàmbur agressé yooyu yëpp xam doy bu buñ ma ko joxoon ma islamiser ko am nuñ ko lijjante ba nga xam ni mais damay maintenir principe bu làmb ci boppam sport la baax na mais en même temps dinaa dindi frappe bi à main nue dama koy dindi def ko mu nekk rek technique dañuy wax naan non nit ñi dañu bëgg deret bi couler dóor et cetera non ba dañ leen ko tàmmaloo rek mais mën nañ def làmb yu rafet te du am mu am rek ay clé ah ay bittandi ay collecte yoo xam ne day rafet comme mbappat mais ñun bu ñu nekkee xale dañ ko doon def mais ñëpp kon ñëpp kenn lu tax ñu jékki-jékki rek gëmloo Sénégalais yi que ni bu ñu dóorul ba mu nàcc du combat bu rafet ñu bëri ci yéen nii ñu jógee Casamance wala feneen doon woon doon leen woon raté les combats saisonniers te dóor du am loolu yëpp dañu ko gëmloo rek léegi euh, kon man dinaa ko régler façon boobu nii sol lu xaw a gën a nekk pancan dem ba ci au moins ci cuisse bi au moins comme am na tuuti divergence foofu noonu bañu def ngemb yi ñuy def Euh, bañ a faat waxtu yi y' a un écart entre takkusaan ak timis euh, une heure temps am na fa boo xam ne mën nañ fa bëre euh, li ñuy bëre et cetera mais dara neew ci dañ koy organiser bàyyi tamit xarfa foofa yi amul benn njëriñ lekk xaalisu mbër yi kese la ak ak di dooleel ay njabarkat rek yoo xam ne boo daanee ñu ne la maa ko waxoon boo daanoo ñu ne la maa ko waxoon bon léegi loolu laay wax violence bi. violence bi est-ce que xam nga man am naa pour te dire que ngi ciy réfléchir sax est-ce que xam ngeen am naa sax man proposition que ni bëri nii balaa ngay xam ki man bëri dëgg doo ko jox benn chance rek xoolal ngeen léewtoon nii dóor nga daanu loolu ku nekk mën na ko te ku nekk mën na la ci bett mais sa est-ce que sa bëri feeñ na le plus grand champion du monde mën nañu ko dóor mu toog mais je suis contre ça c'est injuste nit entraîné un an ñu dóor ko mu toog en trois secondes nit ñi kontaan waaye dañ ko dóor mu toog xamuñu lu xew xoolal lu mu mooy ñu def par exemple trois rangs trois rounds de cinq minutes boxe ñaata round la waaw ah alors yooyu le problème du dañ koy def ñu def trois rounds de cinq minutes ci bëri dëgg feeñ xool boo boo daanelee bu njëkk bi deuxième bi doo ci gaaw génn parce que waa ji dina génnee dara troisième round bi nag mooy teqale parce que boo defee deux mën nañ machine yi man man loolu maa ngi ciy réfléchir comme sax mu nekk bëri bu neex en trois rounds léegi nag violence bi loolu vraiment c'est une question régalienne de l'État c'est au service de l'État ñu gën a waxtaan avec le milieu euh, sportif loolu du rek lamb football nawetaan yëpp gis nga. voilà waaw agression yi loolu nag vraiment du ma spécialiste loolu mais c'est au service de l'État de prendre toutes les dispositions donte woon nag gaa yi nañ nañu waxante dëgg est-ce que am na ci monde foo xam ne tey am na état boo xam ne tey maîtriser na yu mel noonu su amee ba violence du am ci mbedd mi duñ toj oto am na loo xam ne bu heure bu xewee dañuy compter ñaata oto lañ lakk ñaata nit lañ dóor ñaata policier lañ gaañ kon tam loolu du ñàkk service Sénégal ah donte woon na gënul fenn mais loolu moom li ma mën a wax rek mooy lancer un message au service gestion de foule gestion des manifestations nañ ci gën a def personnel gën ci former ay nit gën ci def ay moyens parce que ay nit faatu wala dee loolu c'est très important Euh, kon waruñ ko sàggane rek jàpp ne bon xale yi ñoo tàng deret rek dem bëree après benn xale dee na ñaari xale déedéet ay citoyens sénégalais dañu war a mën a dem seetaan seen lamb def seen sport ñibbi seen kër tranquille te kenn du ci dee kenn ci gaañu. kaw ah, euh, euh, mu yóbbu woon ñu ne ko ba mu départir de recours bi on lui a on lui a dit que dafa problème de et tout est ce que gisoon ni war hmm, nañu très bonne nouvelle affaire bi daaf bi et tout pour ñu xool réellement saxam si amuñu problème logistique et tout parce que c' pas normal. pas normal dem ne ko loolu baaxul bu ñu andiwaat les mêmes choses nga ne ko dafa amoon problème de vérification. ñu revenir si kaw euh, Amsatou Sow Sidibé ak PDR Pape

wala député wala président parce que ñett yooyu à peu mooy pal yi xam nga yeneen yëpp c'est le président qui nomme au poste civil et militaire mais ñett yooyu moom euh, nit ñi ñoo lay euh, élire ginnaaw yàlla euh, donte woon pour man warta yomb donc war nañ trouver nu ñu koy defee ba nga xam ni du ku mun neex nga wut say nit wut sa xaalis ñu war a mën a nekk suñu maire wala suñu député wala nekk président day bëri ay manipulation yu ci mën a aju moo tax man fan yi maa ngi doon réfléchir d'ailleurs ci ay critères par exemple pour man koo xam ne da nga bëgg a nekk député wala maire wala président mais jàpp naa ni bokk na ci critères yi ñu war a tegal mooy d'abord nationalité unique sénégalaise ah oui réewu Sénégal nga war a lijjanti waaw nationalité unique sénégalaise beneen bi mooy comme politique nga koy jaaree war nga prouver que ni yaa ngi def ay activité politiques au moins pendant un an def nga congrès def nga activité xoolal sama genre nii en deux mois des élections nit ñëw créer partem wala coalition dem wuti ji législative wala mairie wala sax président pour man day yomb bu fekkee politique daf ko yitteel dëgg war na am déjà ay activité politiques au moins pendant un an ñu xam ne réew mi yitteel na ko mi ngi wax ci affaire politique di def ay meeting di bind ay documents naan Sénégal lii laa ci bëgg et cetera et bu dee maire bi tamit muy wax mairie bi lii laa ci bëgg et mais juste à quelques semaines nga dajaloo ko ay mbir rek diaspora bi yëpp ñu yónnee la ay millions. naan nañ yónni ay oto pour nga nekk maire wala pour nga nekk député wala nga nekk président ça peut être très dangereux pour un pays gis nga même ay États-Unis les grands électeurs ah affaire bi kon laaj na ñàkk donc il faut ñu trouver équilibre entre ak yellee fu ku nekk ci euh, am sa parti politique ci compétition politique ak tamit ñu sécuriser réew mi aussi ba ñi nga xam ne ñooy nekk en compétition moo am tamit ay critères yuy tax ñu ñu sécuriser euh, poste électif yooyu euh, ñu rassurer ñu tamit ci ñi ci war a jot loolu man c'est important Euh, li nga wax tamit sur le plan tam technique affaire cuune ñu bàyyi ko affaire cuune ñu bàyyi ko fichier électoral bi ay milliards lañ ciy def chaque élection dugg na fi jaar na fi war nañ ko defee façon boo xam ni warul am ay dañoo amoon confusion fii loolu c'est pas normal kooku la la ci wax. beneen bi aussi mooy man li ma gënal te loolu moo jaaru ci démocratie gis nga démocratie dëgg dañu war a fexe ba compétition bi ñi bëgg a bokk ñëpp te matal seen dossier. Euh, bokk ci kon buñ jéem a tànc kenn dañu war a bàyyi compétition bi loolu mooy tax sénégalais yi xam euh, ku nekk la mu wax la mu bëgg ci réew mi la mu bëgg ci gox bu dee mairie la la mu bëgg ci assemblée nationale la mu bëgg bu nekkee président mais jéem a tànc ay nit ba ba ñu bañ a bokk loolu du yëfu gor te du yëfu euh, démocratie mais en même temps tamit la nga war dajale ba bokk bul cuune cuune lu ba bañ koo matal boo ñëwee ñu la sa dossier matul nga ne damay xeex wala damay tànj réew mi euh, dañoo bañ ma bokk waaw loolu tam c'est pas responsable ah donc mais pour man nañu xajal ñëpp ba dossier bi ngeen mujjee wax ni ba ci c'est une très bonne nouvelle euh, que sëñ bu bokk Sénégal yi dégg li muy wax ñu ni neen la lan la programme lan la bëgg su demee assemblée nationale ñu bàyyi ko mu wax buñ ko voté lee mu dem nekk député ñu nekk député fii dañ ko gën donc euh, beneen bi mooy que soo soo soo soo xoolee li ñuy wax ni actuellement liste yeewu bi dakaar ak euh, benn Bokk Yaakaar et cetera et man li ma favorable mooy que nañ fexe rek ah ba li nga xam ni moo indi problème ba liste bi ñu bañ koo accepter ñu ñu permettre ñooñu ñu corriger ko de façon correcte te ñu bàyyi leen ñu dem ci compétition bi. loolu moo ma gënal euh, ñu tere kii euh, xatal kële bàyyi kii mu jàll ban ndam moo am. ci gañe boo xam ni da ngaa tere ñeneen ñi bokk kooku du ndam sur le plan démocratique kon sénégalais yi dañoo soxla offre politique nañ leen bàyyi ñu def seen offre mais quand même tamit offre boo gis dañ koy réglementé amul benn pays ci monde bi boo xam ne da ngay fàqee fa la jóge ñëw teg sa dossier daal dem ci élection yi loolu tam amul fenn il faut pas aussi euh, que ñu déconne donc loolu c'est une très bonne nouvelle et que euh, affaire yu cuune boobu sur le plan administratif nañ ko teg fële de côté parce que mën na nekk sax de bonne foi effectivement dañoo def erreur mais mooy tax crise am mooy tax citoyen daal ne ñii dañu bëgg a te fekk sax problème technique la mais am na ci foo xam ne nag amuloo droit am problème technique amuloo ci droit wala bu amee tamit war nga mën a clairement wax ne problème bu la bett la bu la ëpp doole la voilà kon soyons sérieux ah on manque de sérieux et de rigueur et de responsabilité dans ce pays là waaw professeur Amsatou Sow euh, Sidibé li may li may mujjee ci mooy lii lu fi jar dem ay tribunal man loolu mooy sama xalaat déjà c'est vrai que nag nit ki bu frustré mënoo wax à sa place mën nañu imam Kanté non bu ko def mais je me dis xale la buy doog a dugg ci affaire politique mën na am mu def erreur ci affaire parrainage yi am sa taw si dibee la nekk euh, nit ku respectable ci réew mi nekk prof de droit euh, yàgg ci langue politique bi man yaakaar naa ne Pape Djibi Fall bu fekkee am nag moom malentendu euh, bu doon man damay jàpp ne Pape Djibi faal dafa def erreur d'appréciation wala équipe ñoo gérer parenage yi bañ cee déggoog moom comme moom nee na daf ko jox parrainage ba pare mu jël ko def leneen pour man noonu laa koy considérer comme magam la ne ko rek attention lii erreur la beneen yoon bu la dal nañ waxtaan ba seet nag léegi et cetera surtout que Pape Djibi Fall li mu waxte te moom weddiwu ko mooy professeur Amsatou Sidibé moo ñëw ci moom c'est important comme moom moo yaakaar dara ci xale bi te njëkk ko ci politique ba ñëw ci moom kon tamit na ko muñal su defee erreur mais weejante bi nii ak dem Euh, sur le plan pratique politique ma ni lu rafet la et que moo gën euh, donc Pape Djibril Fall aussi lépp lu mën a def rek pour rassurer ko euh, wan ko ni jéemuma la wor jéemuma la nax loolu tam dafa dafa baax kon nag loolu laay wax ci ci ci dossier boobu. jërëjëf ko maa ngi leen sant di leen gërëm et à jeudi projet incha allah ñu yendu jàmm jërëjëf.